Assalamualaikum wa rahmatullahi taala wa barakaatu internet yi ñuy seetaan fii ci buzz ñu ngi leen di nuyu bu baax baax tay nak dañuy am mbégte ak contentement trop togat ak Cheikh Makhtar Niass borom solution Cheikh Makhtar Niass nak borom solution Boko boko déggé da nga xamné ne euh, ku xam lu muy def la ku xam ku bokku si askan bu baax la machallah allah euh, ñuy xoo ci waxtan bi rek dañ koy bàyyi mu nuyu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yu koy seetaan fii ci Senbuzz Cheikh bi ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la tadagal fii ci Senbuzz ñu bàyyi la nga nuyu internet yu lay seetaan. maaleykum salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah yi jullit yi mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu ngi jox ku nekk sa wàccuwaay di leen jox nuyoo bi gën ci nuyoo yi mooy wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Cheikh Makhtar tay ñu fas yéene waxtaan ak yow euh, ci mbir yoo xamante ne nii daanaka sénégalais yu si bëri dañuy am polémique boobu noonu bu si njëkk tey mooy euh, wàllu seet parce que tradipraticiens yi bëri euh, nañ Sénégal mais ak nit ku nekk ak ni ngay seetee tey ñu fasiyene waxtaan ak yow nag fu ñu njëkk tijjee mooy ci wàllu seet nan ngay seetee ak say clients yi nga xamante ne tey dañuy dañ lay faral di ñëw di la di la tabarakallah ci ci ci ci question bi nga ma laaj neex na ma lool. Mhm. waaye laata loolu danaa la wax kan mooy Cheikh maxtar bisimilah Cheikh Makhtar Niass mu ngi juddoo ci ñaari wayjur yu tedd. yoo xam ne nii ñu ngi bàyyeekoo fële lew na ñaseen Kaolack. Mhm. te lew na ñaseen ku ko xam-xam ne péewu xam-xam la péewu mbóot la. Mhm. waaye péewu lijaaba la. Euh, foofu la Cheikh Matar juddoo mhm. ci ñaari diggante woy juróom yi nga xam ne nii ñoom mooy euh, ki nga xam ne nii mooy Cheikh Alxaaji Aliou Yaama Niass di mhm. doom ci Aliou Aminata Niass mhm. Aliou Aminata Niass moom ak Mam Khalifa ak Baye Niass ñoom bokk benn Baye Mam Alaaji Abdoulaye Niass moo leen jur ñun foofu lañ soqee ko kon ñun yaakaar naa ne euh, gësam indi wuñu ci yëf yi Mhm. te nekkuñ nag sëriñu tariyaax pour ñu bala ñoo départ rek ñoo xamaale ko ñun nekkuñu sëriñu tariyaax ñun ay kilifa diine lañ xam-xam wàllu yaa nekkul ci ay wàllu déedéet wàllu yaa ndax maanaam mhm. lu xam la dañ cee juddu mhm. ku ñu gis fekk ñu ñuy def leneen bu ñu ñëwee danañu laaj li ngay def fan nga ko jëlee mais nag ku ñu ñëw fekk ñu ci lii nga xam ne nii ci lañ ñu woo mhm. bu boobaa tamit laaxar wala rek mbatt buñ dollu ci ndaali la rek incha allah mhm. foofu lañ juddoo fi nga xam ne nii mooy leew nañu seen Kaolack mhm. fa lañ bàyyeekoo ñëw am yoo xam ne nii ñu war koo leeral incha allah li nga ma laaj nag bu soobee yàlla danañ la ci tontu bismillah ndax maanaam wàllu seet dafa nekk loo ne ni lu doy waar la ñun seet bi ñuy seet ramli la ñuy def ramli ramli mooy ban ramli maanaam buñ soree ñun benn téere la téere bi buñ ko siy def incha allahu rabbi mhm. dañ ko si xool buñ fekkee ne ñu ngi toog fi ñu toog si barab bi mhm. soo ñëwee mhm. incha allahu rabbi boo ñu joxee sa tour ak sa sant dañuy génnee loolu seetal la ca ba pare jox la nga dem léegi nag bu fekkee ne dañoo sori euh, bu boobaa fi ñu toog la ñuy toog li ñuy li ñuy génnee moom mooy nuñ koy waxeeti bi euh, si suuf bañ nekk fa la ñuy jël di ko seet incha allahu rabbi seetal la ci léegi euh, ramli ku jàngul xilmu nujum mënoo koo def ku xamul biddiw waroo koo def te fi mu ne nii ñi si bari dañ leen di seetloo ba pare sax man am na si ñoo xam ne am naa si ay clients ko xam ne ay sëriñ lañ nit bu leen seetloo nit bu leen seetloo laa la wax de. Mhm. danañ ma woo téléphone. Mhm. yaa ngi dégg ma ramli leen seetal leen li ñu leen seetal ba pare jox leen ko ñoom ñu jox ko seen clients yi. ay sëriñ yoo xam ne nii. Ah, kon yow am na ay sëriñ yoo xam ne dañ lay dañ lay woo ñëw wala ñëw si yow nga seetal leen ba pare pour ñu ñoom ñu mun a wax seen clients yi ay résultats. courtier sëriñ fii nii dafay bëri. am nañ ci ñu bari ñoo xam ne ñu siiw ñoo xam ne nii man suñ ma gisee sa écran bi xam nañ li may wax. Mhm. ku ci ñëw ba naan da ngay seetal nit. kon mbir mi am na ay courtier kon. courtier yi bari Sénégal fii ñi si boo doon compter sëriñ yi daka aka aka aka aka moo jafe. est-ce que jàpp jàpp ne loolu moo tax pàccoxoo bi tamit yenn pàccoxoo yi bari moo tax mu bari ne nii xamoo ki man xamoo ku mënut. Mhm. moo tax xanaa xamoo ne ñun vidéo yi ñuy faral di def nii. Mhm. boo ñu xoolee gëj nañ ci internet bi. waaw loolu dañ koo geddoon xam nga lu tax. Mhm. maanaam li fi nekk moom moo bari coow li bari ku nekk di wax. ku ne di wax di wax di wax di wax te li muy wax xamu ci dara. lu dëgg léegi nag loolu. ci lañ am vidéo yi nga xam ne nii moom la ñuy def ëpp doole gi yëpp ñoom ñooñu dañuy dafay am ay nit yoo xam ne ñoom ñooñuy fayal internet yi ba pare woo kay def yëfi ne ko defal internet nga interview wax ak wax ak wax ak sénégalais yi xam nga yooyu dafa nekk loo xam ne tappale la dafa nekk ci réew mi te am nañu si bari ñoo xam ne ni man li ma doon bëgg mooy ki nga xam ne nii moom mooy jiite réew mi di Macky moo régulariser yëfi mu teg ko si yoon daal ndax ñi nga xam ne nii ñoom ñooy sëriñ nañ leen boole ñoom ñëpp ku ci nekk la ngay faj mu ne la carrément lii lii kii nii lii dal na ko léegi faj ko soo soo demee mën koo faj mu bàyyi la nga dem boo ko mënta faj ñu yóbbu la ci kaso gi suñ ko defoon defaat ko léegi tey nga gis ne métier mi réglé ndax loo gis lu nekk rek am na ay tappale yoo xam ne nii loolu daf ñoo métti métti na ni métti yoo xam ne nii tabaarkal la boo gisee nag wax la ram li ku xamut biddiw waroo seet ndax nit bu nekk dafa am ci biddiw buñ ko buñ ko bind dooguma la sax fa euh, au passage démb rek mhm. am na benn télévision bu fi nekk senegal 2STV patron ci El Hadj Ndiaye mm-hmm. mu ngi mu ngi interdit di wax ne tradipraticiens yi mm-hmm. bu ñu ñëw ñoom jarul sax ñu ñëw DSTV à cause ne que parce que euh, arnaque bi def see bëri yeeg nangam nangam bëggul ñu feeñ télé yow lan lan nga si wax loolu ñu ñu génn ñu wax si tuuti rek lan nga doon wax El Hadj Ndiaye ci wax boobu mu wax. ba seen baara tontu moo nekk ci dëgg. El Hadj Ndiaye moo nekk su ko patron de presse yëpp defoon rek bu boobaa rek li yëf yi mën naa régler. Mm-hmm. ndax boo xoolee yëf yi day ba bu buñ demee ba ci biir day nuroog loo xam ne ni ñoom receveur la ñuy doon mm-hmm. koo xam ne xamul ku ñëw ñu dëkk la micro ne la waxal mm-hmm. léegi nag nga jël sa xaalis fay ba pare nag nit seetaan ko gëm la jël xaalisam jox ko kon yow bokk participer nga ci li nga xam ne nii naxe yi ñu naxe mm-hmm. yow borom télé bi participer participer kon loolu man dama ko ciy gërëm di ko sant di ko wax di interpeller borom télé yëpp nañ def ni moom buñ ko defee rek léegi tey métier mi normal ndax dafa am ñoo xam ne ñoo ci wàlli yan si te kenn xamu leen da gis koo xam ne nii day dem liggéey ba liggéey ba amatul dara mu daanu mu dem jël xaftaanam sol euh, ñawlu dem woo benn sit ñëw jox ko fukki junne wala mu jox ko la mu koy jox ba pare ne ko defal ma euh, vidéo di nax ñi te li muy wax xamu ci dara koo si jàkkaarloo na ne ko bindal ma xaatim xaatim bu damm koo ko ci woon mënu ko defar hmm. xaatim bu damm koo ko ci def jox mënu ci def te ñu ngi rey nit ñi ñu ngi jël ay xaatim di ko bind di ko jox ay doomu ñaadama ñu koy sangoo te xaatim bu damm ku ko sang ko jox nit mu sangoo ko mais est-ce que est-ce que est-ce que xaatim foofu laay duggee yow sax mhm. est-ce que xaatim tey mhm. mun nga toog si télé mhm. en plein télé ngay wax de expliquer ay ay ay secret ci xaatim yooyu noonu comme ça di di ko di ko bazarde nii rek di ko wane si kii bi ndax maanaam secret boo ne secret rek jeexal nay wax surtout secret mbóot la dañ koo war a denc mbóot moom bu feeñee rek nekkatul mbóot dëgg la bu feeñee rek nekkatul mbóot secret secret la tudd dañ koy denc lii faj day denc dañ koy def ci nii kanaa xamoo ne boo déggee ñu ne la lii daan mbër Mm-hmm. du ñëw stade yaa ngi koy dégg de. waaw maa ngi koy dégg bu baax loolu lay dëgg. boo gisee li ñuy sangoo nii di ko lii musluwaay la ak bëtu nit ñi rek mais lii daañ mbër ma ngi ca ga toog. Mm-hmm. secret du génn. dëgg mais dafa bëri ñoo xam ne nii dañuy ñëw di arnaquer nit ñi di la wax ne ne damaa damay faj rab rab bi may kii rab bi di yuuxu di ne lépp dañuy fen rek. Mm-hmm. kon da nga bëggoon a fajkat rab yi ñu si bëri waxuñu dëgg ci ëpp doole gi yëpp ay fenkat lañ. dañuy taxaw di la kii. mais est-ce faj rab carrément am na. rab moom am na. rab boo ko géggeeñ mooy jinne ju bon mooy rab mm. ndax alquran moo ñu dëggal lenn wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li ya'buduni mm. yàlla moo ne binduma nit ak rab ak jinne pour ñu jaamu mais waxul sax rab mm. jinne moom mooy koo xam ne nii dafa jaamu yàlla bañ tut ko tekku saaleex mm-hmm. comme ni ngay jaamoo yàlla nii jinne yi dañuy jaamoo yàlla noonu dañuy jaamu yàlla ba def lu bon daf leen të am na koo xam ne dafa mooy yàlla mooy yàlla ba def lu baax da koy të moom mooy rab mm-hmm. loolu la ñuy wooyee rab moom mooy wàcc melekaanu nit di yàqal nit mm-hmm. mais jinne ku amul bopp mënoo koo gis am na ci ci bari ñoo xam ne ñu ngi naan ñu ngi am jinne wallahi buñ gisee jinne fëx la ñuy def daw lu leer laa lay wax ñu ñu dugg ci eh, ñëpp xam nañ ne da ngay faj eh, da ngay da ngay da ngay seet mm-hmm. ko ko ku ñëw si balaa nga koy ñaanal il faut nga seet ko mm-hmm. loolu moom féetee na côté tabaraka mais nan ngay fajee tey mm-hmm. comme par exemple koo xam ne dafa tëju wala koo xamante ne nii euh, tëjuwul sax. Mhm. mais affaire am doxut bu baax. maanaam day jógoo ko daanu. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. wala koo xam ne moom daanaka daal musul sax am liggéey wala pare na nii mais amul liggéey te bëgg na am liggéey wala ñi nga xamante dañoo nekk bitim réew bëgg ay kayit. wala ñu nekk fii nga xamante dañoo bëgg tukki ñoomit it ay kayit. nangay liggéey ak ñooñu noonu nit ñooñu jaar nit yooyu noonu carrément. tabaarakallaahu fi ñu fay duggee moom mooy ñun wàllu faj wolof ci lañ ne. donte ne xam yu bëri nag peek nañ ko ñëw toog ndax dañ koo jàngi woon ñun li ñuy wax làmbatuwuñu ko maanaam faju wolof dafa nekk loo xam ne nii képp koo xam ne nekk na ci réew mii ci loolu nga waroon a vocaliser du ko def faju wolof waaw ndax yàlla bépp mbindeef boo xam ne nii bind na ko rek def ko ci askan woowu hmm. la koy faj mu ngi ci rëkk dëkk boobu noonu kon sénégalais lu leen di faj mu ngi sénégal bi ngi ko jéggaanee lañu am problème boo xoolee nañ tubaab yi nga xam ne nii tubaab yi nga xam ne nii Euh, ñoom ñooy ñëw di jël ay kii nii xamal ne euh, comprimé yi ñuy defar ci suñ gàncax gi lañ koy jëlee. Hmm? dañ koy jël dem defaat ci yeneen produit chimique yoo xam ni dara baaxu ci ñu jël ko ñëw imposé waat ñu ko jaay ñu ko lu seer ba pare nag euh, bu nekkee ne exemple laa jox benn paracétamol boo ci jël naan ko am na benn effet boo xam ne nii bàyyi na la. daf koy bàyyi si yow. léegi effet boobu mu la bàyyi am na defalaat nañ beneen garab goo xam ne nii mooy faj loolu. Hmm. garab googu noonu defaraat nañ beneen effet secondaire boo xam ne ni dañ ko ciy defaat beneen garab ñu nekk ak ñoom loolu di ñuy ngàcc du yóbbu hmm. léegi nag boo xamee lii nga xam ne nii mooy pajuk olof kii mhm. muy téere bii amut lu mu bàyyi. téere bii nit koo xam ne nii dafa feebar. yëkkati ko ñëpp gis nga ko. Mhm. téere baa ngi nii. Mhm. téere bii man moom laay faje d'accord maanaam garab gu nekk rek am na benn aaya alquran boo xam ne nii moom la ko yàlla mooñee moom lay fajee. indi si ay masalan si ay ay garab rek. garab yii nii gis nga kii mu nekk jigéen gu tëju. jigéen goo xam ne dafa tëju. commencé na di sëy am na doom mhm. mu dem ba ci yàgg tëju mënut am doom mhm. loolu tëju lañ koy wax mhm. moo ci gën a gaaw renu daqaar ngay jël am benn aaya alquran boo xam ne ni moom nga koy booleeg foog ñu côté ko d'accord d'accord xam naa ndax sirul la yaa ngi dégg moom lay jël boole kook moom ñu jox ko mu jëfandikoo ko di ci naan di ci sangu bu ko defee un mois fekk mu ngee jëkkëram bu soobee yàlla li tëju woon ci moom dina tijjeeku ba mën a am doom ba mën a am doom xam nga lu tax muy ñàkk am doom lenn kese la fa doom ji war a reposé wu mm-hmm. jigéen ñi du ñuy musóoru mm-hmm. dañuy dox timis mm-hmm. dañuy dox trois heures léegi nag loolu noonu rab foofu la gën a bañ ngelaw seytaane foofu la koy dugg fa doom ji war a placé wu foofu lay ngelaw li taj loolu nag moo koy dindi xam nga lu tax daqaar bokk ci. Mhm. Dakar jinne ko moom déggoo ñu ne la ku bëgg jinne bu bëggee Dakar ku yëg daan mhm. moo tax ñu faj ko ci loolu. moo tax ma ne la gàncax yépp yoo xam ne nii mooy faj doomu aadama mu ngi fii ci réew mi. dëgg ci la ñuy faj. Mhm. mbooleem feebar maanaam attaan nit kuy waccu sax. wàccu mi jaaxal ko jaaxal ko jaaxal goo xam ne nii wallaahi. da ngay ñëw li ngay jël nuñ koy waxeeti euh, liy faj si buru xasum dànq dànk. la ñuy jël boole ko benn laay alquran jox ko ko mun naan ko wàcc ma arrêté. carrément carrément. Mhm. boobu immédiatement la. Mhm. mais nag dafa am ab dosage dosage boo gis lu nekk rek bind nañ la ko fii. Mhm. bu nekkee ne xale la boo koy defal xale. mën ngaa jël ñaari xob ñetti xob defal ko. bu fekkee ne mag la mën ngaa jël juróom ñaari xob ba douze xob defal ko ci mu naan. dosage la. mais am na ñoo xam ne nii dañ lay digal ne la jëlal euh, xob rek nga dem jël àddunaay xob ci ko mën na laa indil problème mën nga am mm-hmm. estomac mm-hmm. Mm-hmm. mën nga am tension buy wàcc wala buy yéeg bu boobaa mën nga am problème léegi nag comme téere bii amul lum bàyyi ci jigéen bu taxaw góor gu tële góor gu impuissance lépp téere bii na da koy faj impuissance sexuelle loolu de dafa sonal nit ñi moom ak moo yomb ci ñu nit faj ko dafa hmm? am ay sadik yoo xam ne nii sadik yoo hmm. xam ne ni day banku ci doomu aadama mais mais mais nit ki nan la mun na def ba impuissance sexuelle euh, dab ko carrément problème mu àdduna réew mu metti lu ne war la da nga fay courant da nga fay ndox soxna yaa ngi taxaw jigéen ñi ngi taxaw stress boobu noonu attanoo ko. stress boobu mooy waral impuissance sexuelle. impuissance yu bari moo koy def ak lekk yu bon yi fi nekk. d'accord loolu bokk na ci ñu koy li koy joxe léegi nag lekk yooyu noonu yow lii ñu nga xam ne ni impuissance la. Mhm. li ma la waxoon moom moo ci nekk benn hémorroïde moo koy jàpp. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. wala rab jàpp ko. muy jinne Mm-hmm. jinne ju bon jooju ma la wax moom mooy topp doomu aadama yi di leen yàqal bul fàtte ne iblis bi ko mm-hmm. yàlla moom iblis ma danaa ànd ak malaaka yi di doxe ay mission mm-hmm. bi ko yàlla alagee nag dana ko man jàq nga ma waaye nag danaa jàkkaarloog ñi nga xam ne nii ñoom nga fi bàyyi danaa leen yàqal mu ne ko demal léegi nag ñooñu noonu iblis jàpp leen di leen yàqal foofu la leen di jaare impuissance am nañ ci loo xam ne nii tey buñ la ko defalee incha allahu rabbi nga jëfandikoo une semaine lañ la may semaine semaine lañ la may lépp mu ngi ci téere bii nii ñun li wax làmbatuñ ko téere lañ yor boo xam ne nii fii lañ ko réewee fii lañ ko liggéeyee mm-hmm. muy téere boo xam ne nii Mame ma laa Abdoulaye Niass moo ko bindal moo ko bind ak loxom bépp garab boo xam ne nii mu ngi meññeeb mu ngi meññi fii nii Sénégal mm-hmm. bind na ci bind na ci bind ci alquran aaya alquran bi mu war a àndal ak isib alquran bi mu war a àndal ba pare jox la ko ne leen nii lañ koy jëfandikoo mm. téere boobu nag nekkul ne n'importe qui lañ koy génnee xam naa ne maa ngi koy wax waaye bu ma ko paree ba mm. moytuut am na mag ñoo xam ne nii siñu seen danañ ma woo di ma attaqué ndax téere bi warul génn mm-hmm. li ñuy wax dañ ko xam làmbatuwuñu ko mm-hmm. implicage dafa am góor gu tële tële goo xam ne nii judduwaale ko dañ koy faj mm-hmm. waaye boo judduwaale mënuñ ci dara xam mais est-ce que góor góor kese moom mooy tële est-ce que jigéen tamit du day taxaw ah day taxaw naa day taxaw benn moo nekk hémorroïde jàpp ko mm. ba du mën a am ak du am sax soxla ci ci jëkkëram mën nañoo toog loo xam ne ni une semaine wala deux semaines yoo xam ne dañ bokk benn lal mais xelam sax du nekk ci moom loolu moom boo demee ba di ko gis rek jàppal ne hémorroïde la hémorroïde moom dafa dafa dafa dafa sonal nit maa koy faj ci ñetti semaine ñetti semaine ma faj ko mu wér këlëb ba dootu la ñëwalati mhm. dafa am ay xas lu ma la wax rek xas yoo xam ne nii fii la nekk ci réew mi man li may faj du ma ko jéggaani man consommé local boo déggee ñu koy wax man maa ngi nii toog mhm. du di yóbbu di di fa di fa dem fa faju ji man lu ma mën a metti fu nekk sama téere bi lay gëstu xool lan moo may metti ma dem jënd loola bind alxuraan boobu sangoo ko wala man naan ko mu tàggoog man hmm? képp ku may jëf man ñi may jëflante xam nañ li may wax boo gisee man gëj naa si internet bi di dem hmm. xam nga lu tax hmm. maanaam nit ñi nga xam ne nii defoon naa defoon naa benn vidéo ñoom si boppam ñoom ñooy jël ay nit ku ma ci jëflanteel yow yaay woo nit ki ba pare jox ko sama numéro ne ko woo man maa ngi toog samay mbir a ngi dox Dakar gi xaw ma kañ laa fi gëj maa ngi kaw Kaolack toog nek sama bopp. Mhm. nit ñi may xam naa xam naa dinañ jàpp jour. ñëw hmm? ñëw ñëw Saloum. incha ñu dem si àll bi ñu gën waxtaan ci. bu boobaa bu boobaa ma wax la garab bu nekk ci wàllu garab yi garab bu nekk noo koy ndax lii. Hmm. interview bu ndaw la ndax mënoo cee wax lépp. dëgg la moo rek waaye. bu li hmm. ko noonu danaa la tegal ni ñu koy waxeeti. karaw goo xam ne nit koo xam dafa judd karawam bañ a sax sax. fii nii am na lu ko fi lu loo xam ne nii. boo ko ci defee loo xam ne dafa judd karawam bañ sax. bañ sax loolu ngi koy doog a karawam saxut. nga di bi eh, indi benn benn ren boole ko alxuraan jox ko mu koy raxas mu koy kay raxasee moo gën a gaaw fuuf ku leel sax mu nga ko mën a indi moom kay duñ koy waxee waxeeti karaw lay indi alxuraan moo bawul dara maa farat naahu fii kitaabin min shay'in la la la yonent bi wax mhm. alxuraan bawul dara kon nag bu alxuraan bawul dara war naa faj lépp nag war naa faj lépp mhm. sa karaw goo xam ne nii dafa dem nopp yu métti bët yu lëndëm mhm. yaa ngi dégg soj mu të arrêté di kuy wàcc muy continuer mhm. ku yore fii nii dox yooyu noonu yooyu ñuy opérer noonu yaa ngi dégg mhm. estomac mhm. ku yore euh, tension diabète lépp mu ngi fii nii si téere bi lépp mu ngi si téere bi lépp mu ngi si téere bi te nekkul loo xam ne dañ koy làmbaatu lii fu fu dañoo dañoo jaral lu ne képp ku ko mën a am ci ci réew mi di te te ñiy faj laa la wax ñi nekk ci kii bi ku ci mën a am na génne téere bi amu ko bi am na si ñoo xam ne nii ñu ngi si te kii bi di wax wallahi buñ togué suñ numéro téléphone xam nañ ko bës buñ jaxé ñun lañuy wo woo foofu rek lañuy duggé waté parce que ñu gis jaaro bi nga xamanteni dang ko tak man dal jaaro bi xaw ban ban jaaro ma sha allah bëgg naa nga ñëw nak ci jaaro bi ni avant ñuy dugg ci laax bi ngay wax bi waxtaan ñu ci jaaro bi nga tak ba paré parce que jaaro yi man damay gis kilifa yu bari dañ koy tak waye dal luma jaaxal la dal tabarakallah xaqiqa bii moom xaqiqa alaaji abdoulahi ñas la mhm. bii ñun walew nañ ñun ñoo ko dafa nekk ci bañ nañ ko ba dañ koo dateel can la can can lañ ko def can mooy lan can xam nga tey jii sëy boo xam ne nii takk nañ ko bu amul can sëy ba sëy ba du wér mais lii dafa am loo xam ne nii tey moom lañ koy wecceekoo teg ko fa hmm. amul yokku amul wàññi can foofu lañ ko tënk teg ko fa kenn mun amul droit yokku ko kenn amul droit wàññi ko hmm. aqiqa bi bu doy waar a ngi nii koo xam ne nii yaa ngi liggéey di xam dara weer wu nekk mën ngaa am cinquante mille wala cent mille si si si misaal. Mhm. mais bu weer wi dee xaalis bi boo ko yoree bu tekkee cinq jours dootoo ko gis loolu loxo bu bënn lañ koy wax lii moo ci gën a gaaw. Hmm. dafa kon lii day faj loxo bu bënn. loxo bënn saafara lay àndal buñ la defaree lay lii ba pare saafara bi moom la ñuy jël jox la ko nga raxasoo ko lépp loo amati dana dajee te dana da ciy def dara loo xam ne lu am njëriñ la. Mhm. aussi tamit gis nga ku ñuy liggéey nga nekk ci barab ñu lay xeex wala liggéey ak yooyu moo ci gën a gaaw. foo nekkee barab ñu lay xeex boo takkee jaaro bii. duñ la mënal dara lépp luñ la sànni si jaaro bi lay takk dangay gis jaaro bi day ñuul. wala mu dellu ci moom sax. day ñuul day ñuul te moom du am jàmm. Mhm. day ñuul kuku. ñu day dem di ñuul di ñuul ba kuku boo ko raxasee rek mu dañ. lu ñuul li ñuul loolu noonu mooy mooy kii. Mhm. mooy tooke bi waroon a dugg sa laab sa biir yaram bi. Ah. jaaro bi noonu la mel. Mhm. boo jaaro bi moom jaaro bu doy doy waar la. ak xëy nag bari nañ. waaye nag wallahi bii ñu yor nii ah am nañu si bari ñoo xam ne nii bañ leen ko defalee gis nañ seen bopp te day ubbi encore teg ci macha ubbeekaay la te day mus musluwaay la tamit daal encore ndax yi yiñ ci def la lépp luñ ci def nag jàppal ne mu ngi ci alquran ñun génnuñ alquran lépp lu ñu def ci alquran lañ koy def faj mi ñuy def ci alquran lañ koy def lépp lu ñu mën a def tamit ci alquran lañ koy def mhm. ndax alquran moom mooy mooy njëkk moom mooy li mujj kon nag téere bu mu njëkk bu mujj bu nekk boo ci sukkandikoo rek yàlla mën na laa suturaal ci téere boobu ci lañ nekk li ñuy faj yëpp ci lañ koy faj macha allah ci lañ koy faj macha allah incha allah ku gis ngay wax sax xam ne li ngay wax li mhm. oh, dafa dëggu ci yow mhm. ku amul xam-xam dëgg du waxee nii parce que maa noonu déglu benn borom xam-xam ko amul xam buy ku am xam-xam buy wax jarul jarul muy nopp. Mm-hmm. kon seetlu nañ li ngay wax lu dëggu la ci yow parce que xam nga ko. lu ñu maîtriser la mais mais dafa dañuy dugg si laax bi rek. parce que laax boobu noonu laaxu lew na ñaseen bi. Mm-hmm. xam naa foog ma ñëw lew na jox ma si laax incha allah bu soobee yàlla bëgg naa nga ñëwal laax bi ngay wax eh. ak laax boobu nu mu laaxoo nu mu demee. tabarakallah laax bi boo nekk loo xam ne nii. wallaay lu ama am solo la ci doomu Adama. Mm-hmm. Eh, nekkul nag n'importe kii lañ koy defal. ah loolu ndax laax bi dafa nekk koo xam ne nii kaa am ku critique koo xam ne nii dem na fu ne faju na fu ne mënta wér hmm. coono bu métti dal ko lum dugg mu yàqu lum yaakaar mu yàqu lum yaakaar du si jot bu déposé ay kayit bu demee lépp loo xam ne dañ koy maye sax boo demee yow boo jëndee doo ci am même booy jëndee doo am doo am coo coono boobu noonu nga daj ci àdduna ba métti métti goo xam ne nii bu ñu la ko seetalee ndax ñun bala ñoo defar dara dañ lay seetal bu ah. buñ ko seetee buñ lay gisalee sa cas dafa critique mm-hmm. soo ñëwee mm-hmm. laax bi dafa am benn aaya alquran bu muy àndal ak benn reen bu muy àndal fii ci téere bi ma la waxoon génnu fi moom lañ lay jox toggul la ko jox la ko nga lekk ko soo ko lekkee dem ko duus maanaam ni ngay demee duus noonu dem duus noonu génnee génnee lu bon dafa nekk maanaam lépp loo xam ne ne nekkoon na sa yaram te bokku ci day wàcce day ànd ak moom wàcc noonu lay ànd ak moom wàcc ma boobu moom mooy jooni jooni man parce que man laax bobu nga wax man hmm. maa li ngay expliquer ni man hmm. mang koy doga deg dégg comme serigne bu ma tok toog expliqué ken kenn wu ko netali ndax laax bi dafa nek lo xamni ni mbot la mbot mo xamni ni mu ngi lew nañu seen dañ ko kaste denc ko fa man mako fi commencé mako fi ñëk wax est-ce est-ce ñu ko waxé ni wa lew na duñ lay man kay fim ne ni mom xamna naa ne xam naa ne xam ne vidéo bi mom xamna naa ne bés bu duggé ci internet bi mom ñu ci bari dañ ma attaquer ah. waye nak man ragaluma loolu ndax nit ku nek li ngay wax nang ko xam rek mhm. alaaji Abdoulaye Niass si laa bokk sama baay ki ko jur alaaji Abdoulaye Niass moo ko jur direct man sa direct la kon lépp loo xam ne nii ci alaaji Abdoulaye Niass su jógee rek mhm. man wàllu yaan ñu dama koo dama dama dama koo moom sama sama alal la dama koo téye doomu aadama yi nag foog nga dimbali leen dafa am ñoo xam ne nii bëgg nañoo faju mais ñi mu wuñ ndax li ma la waxoon moo ci nekk ñii du wër ci internet bi ndax nit ñi dafa métti man loolu daf maa daf maa métti métti goo xam ne nii wallaay du ma toog ñaari fan ñett fan wallaay du ma am client boo xam ne nii mu wax ma koo xam ne ku siiw la koo xam ne ku nekk ci dëkk bi barke Cheikh Tidiane mhm. di ma kalaameeg moom ni ma lekk ci xaalis nangam ak nangam ak nangam barke Cheikh Tidiane te dara te lim lim doon ut wallaay day da ngay gis ñoo xam ne nii mhm. benn paquetu biscuit sax boo leen ko digalee ñu def ko sax sarax boobu seen seen aajo faju seen aajo faju doomu aadama yi foog nga len leen foog nga yërëm leen man am naa ci ben client boo xam ne Casamance la jógee mu ma fekk Kaolack mhm. jabaram da doon tour direct ret mhm. mu ne ma fu ne dem naa fa Casamance la jógee bi mu 7500 la yore ci xaalis bi mu tek teg xam nga def ñëw ma ko la ma koy defar nako ko jox ko su ci naanee sangu ci bu soobee yàlla lépp dana arrêté ca mhm. ci lii laa ko jógee soo demee ca foofa ndax dama ne la fépp foo nekk fu nekk rek garab googu moo lay faj mhm. garab googu mënu euh, ren boobu mënu naa ko ut fii jox ko mais dama koo jox saafara ne ko soo demee ba Casamance mhm. nga dem foofu noonu nga ut fa ren nangam nga boole ko moom ndax fa la dëkk la fa nit ki fa mu dëkk la koy faj fa la dëkk fa la ne soo demee nga dem defal ko ko mu dem bi mu ma paree mu jën kut kut génne 7500 yi jox ma ko ma tee 7500 yi xam ne am naa yàqin ne kii lii rek la yor ndax kanamam moo ma ko wan mu ngi jaaxle ma ne ko may ma tuuti ma ñëw ma dugg ci biir jël 7500 yi jëlaat 10 000 francs yoo xam ne sama xaalis la la ma sol ko ci benn kayit jox ko ko ne ko jox ko téeméer nag ne ko soo demee ci ki nga xam ne ni mooy aw nga dem mu ëwal la bi nga joxaale ko mu takk ko mhm. mu dem ba foofu lemmi këyit bi tiit ne ma ah lii xaalis la di rek daw ñëwaat ci man ne ma sëriñ bi kanaa da ngaa kaab kii bi ma ne ko su ma la joxoon xaalis bi xam naa ne doo ko jël te leer na ma ne 7500 yi moom nga yor mhm. mais 10 000 yi man maa la ko jox jënd si yàpp boo demee ko soxna ci mu lekk nga jox ko saafara ci bu kii bu soobee yàlla lépp li sëriñ maanaam nit da koy dalal mhm, mhm. mais nit ku ñëw rek ngay ci alal lan mooy alal mhm. alal dara ñun dimbale doomu aadama yi moo ñu tax a jóg du leneen dëgg la masha allah li ñuy am am nañ ko li ñuy man man nañ ko li ñuy xam-xam nañ ko suñu neexoon ñu toog su nduq teewul nit ñi fekk ñu fa teewul nit ñi daal leen fa fekk gisee may sax li ma gën a tax a jóg moo nekk actualité bi ci mi tamit loolu moo ma tax a jug sax waaye du lii. dañ dañ siy dugg rek. Mhm. actualité bi nga xamante ne nii tey euh, fan yii yëpp daanaka mun naa wane at. Mhm. ak genn wàll saa su moom lañ nekk. Mhm. muy projet Adji Sarr ak euh, Ousmane Sonko. ñu gis ay polémique yu bëri. dem nañ ba dégg si ay sëriñ yoo xamante ne nii euh, jege nañ ci jege la yow. ñu ne ñoom ñoo publier audio muy Baye Mbaye MC Niass. ñu ngi koy nuyu au passage. Mm-hmm. Euh, nan nga jàngatee mbir moomu noonu tey mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko boobu noonu. sant yàlla lañ koy def maanaam tuuma du yàgg di di di di dal si gor ñu baax ñi. Mm-hmm. tuuma lu fi yàgg la te du mës a jógee. Mm-hmm. képp ku baax danañ la tuumaal danañ la teg loo xam ne nii maanaam yow soo fekkee ne eh, li ngay li ngay li ngay li ngay woote du dëgg rek da nga yaw maanaam mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr. man su ma gisee nit ñi di ci débat ba léegi sax man daf may jaaxal. projet boo xam ne nii yow loolu leer na bu yàgg. ña defoon diil ba ñu ngi weer ñu ngi ñu ngi ñu mu ngi toj benn par benn benn par benn. benn par benn te ki nga xam ne nii mooy ndeyu mbi léegi ba léegi benn yoon lañ ko mos a ku nekk ñu ngi lay wax di la woo di di nekk ci entourage bi di woote di wax nañ rek li yëf yi yëf yi jeex te ñu wax ci problème mu Sénégal yi nga xam ne nii moom moo fi taxaw. kilo suukar sept cent lay jar téeméer ak ñeent fukk. ah keroog laa doon seetaan benn euh, kii boo xam ne nii wal fajiri maam biram waj nee na ma Ablaye Wade bi mu fi jógee Sénégal trois mille milliards la fi bàyyi ci bor actuellement xam nga ñaata la nekk mhm. onze mille milliards lañ lañ la la Macky Sall lebagum fii nii si réew mi te loolu yëpp mu ngi toog sun sun sun sun sun ndodd yi ñu yor koo fay mhm. du ñu wax ci jafe-jafe yooyu ñu bàyyi li nga xam ne nii affaire politique la ñu bàyyi kii adversaire dégg naa sax fi mu ne nii ay euh, aéroport bi mu doon jaar pour dem euh, nu ñu koy waxee Ziguinchor dañuy dañ koy dañ ko dañ koy tëj. mu jaar ci suuf luñ ko fexe luñ ko luñ ko luñ koy luñ koy fexeel waaye gis nga taal bu yàlla taal da nga ci sànn matt mu jàmmal la. soo ko bëggee fay yow yaay fay te yàlla ma la yore leen de. gis nga bu rëddee nga effacé mu rëddaat nga balaa rëddaat yow lay effacé presque rëddaat nañ ko bàyyi may ko jàmm. dossier bii li ci nekk daanaka amul njëriñ amalul benn sénégalais njëriñ dem ba lu mel ne quatorze morts loolu dafa métti. tëj buñ tolloo foofu ban hmm? conseil ngay jox Adji Sarr mi nga xamante ne nii buñ dégloo audio bi nga xam ne def na ko dangay xam ne lii am na lu lalu ci ginnaaw bu fekkente ne moom moo aar sero audio bi da ngay xam ne lii am na lu ci ginnaaw wala moom dem na bu bëgg a génn ci mbir mi moom Adji Sarr personnel moom boo ko doon conseil tey lan nga dafa amul kilifa gis nga su amoon kilifa. coow lii mënoon na cee génne bu yàgg coow lii mënoon na cee génne bu yàgg ndax Baye Mbaye MC mi nga xam ne nii woo na ko waxtaan ak moom ñu waxtaan ñoom ñaar coow li mënoon naa jaaree ci moom mu réglé wu mu wax ko li nga xam ne nii mooy réalité yëpp moom bu boobaab moom kilifa la te mën na cee wax li mu bëgg a wax li mu bëgg a wax yëpp mën na koo cee wax waaye topp ay mbir yoo xam ne nii alalu àdduna moo la ci dugal wala leneen loolu yàq sa sa sa kii kanaa fas am doom fas yéene wut nekk sëy jigéen la man dama koo yërëm xam nga lu tax dañ koo jàpp otage waaye nag ñu ko jàpp otage ñu ngi am ñu ngi am ay jafe-jafe ndax ñu ci bari nag ñuy wax ak ñoom yëpp ak téléphone dégg naa ñu ne daf leen di enregistré ndaw si bu ñu yaakaaree dafa dof dofut de dofut jinne jàpp ko nañ jeexal projet bi projet bi man problème bi mooy biñ njëkkee biñ ko njëkkee souligné Macky Sall li mu waxoon moo nekk affaire ñaari civil la nañ leen ko bàyyee ñoom ñaar ñu dem si si ñu lijjanti ko mu jeex nekkul ne kii kii lañ fi njëkk a jiiñ viol nekkul ne kii lañ fi mujjee jiiñ jiiñ viol ah mais wax ji waroon naa jeex bu yàgg justice réglé ko ñu nekk ci leneen mais affaire politique la dëkk bu métti bi la ñuy muuree coow lii coow lii du fi mos a jóg dëkk bee métti nit ñi sonn nit ñi ñoo sonn yow courant baa ngi nii dafa seer ndox maa ngi di seer dund bi seer soo bëggee faju billaay su ma su ma su ma xalaatee li am euh, Louga rek billaay sama xol dafay naqadi ba duma mën a wax mm-hmm, mm-hmm. nan lay nit nekkee ci ci ci nuñ koy waxee di ci mat ñëw si hôpital fekk fa jigéen comme moom ah mu di ko négliger ba mu génn bakkanam ba mu ñàkk bakkanam ma wax ñii ñu kiiwu directeur euh, kii bi taxaw di lay taxaw di weddi di dans la public kooku waroo wax dara gis nga mu nekkoon ne réew muy dox la keroog boobu noonu ministre bi yore wàllu santé bi muy Diouf Sarr keroog day démissionné. day wàcc daf dañ koy wàccee immédiatement yëgal yëgal keneen ba pare topp projet bi. mais Sénégal la dëgg amut. Mhm. njiit yi dañoo pan njiit. Mhm. dañoo pan njiit te ñu ngi ñaan yàlla nag. Mhm. njiit gi fi nekk ak gouvernement am yëpp yàlla jëlee leen fi. ndax not nañ sénégalais yi ba pare euh, teg leen fitna joo xam ne ni yàlla tegu leen ko. te nag maa la yëgal leen. yàlla rek moom moo yeewoo doole. doole moom si si xuwatin doole moom rek ko am. képp ku yaakaar ne am nga doole da ngay nax sa bopp yow da ngay xool ne yow maanaam yow boo nekkee sax di wax ci Macky Sall seen lenn sax yow yaa ngi ci dansé ñu woo la di la menacer wala ñu jàpp la tëj la kaso pour lan euh, euh, Cheikh Omar Diagne mi ñuy tëj barki démb teguñ ko fenn te ñun seetaan nañ débat bi mhm. débat bi man seetaan naa ko wal fajiri la amoon mhm. te euh, pourtant ki ko teg moom moo ko woo téléphone wallaay saaga ko dans la public àdduna yëpp di déglu mhm. taxaw ne ko danaa la def comme jigéen mel ni moom jigéen juru ko wax ju ñaaw jooju nan la ko nit mën a waxee nit ba pare ñu jaay la doole jàpp la forcé la teg la ci kaso pour lan nañ bàyyi doomu a jàmbur ji mu dem ci ay njabootam soxla nañ ko ndax fee palaasam mhm. du palaasam de xam nga ña lay palaasam ñoo ñi xam ne ni ñoom ñooy nekk ci euh, dëkk bi di tappale di dóorlu ay nit mhm. di lekk xaalisu askan wi bu ñu yaakaaree ne yëf yi dana sedd noonu dañuy nax seen bopp ay euh, ministre lañ jox nañ leen ay nooma tàmm ay nomba tànk yoo xam ne nii ñu ngi war a euh, jëflanteeg doomu aadama yi te defuñ ko di leen jaay doole. Mhm. kullukum raahin wa kullukum masul an raayati mhm. waajur wu nekk sàmm nga. Mhm. te ku ci nekk ba bés dina ñëw da nga layoo sa sa sa sa ndeyjoor bi da nga tëdd. te bu boobaa balaa ngaa jàll. da nga leeral ne ndiw ña joxoon nañ ministre sàngam bañ ma ko joxee joxoon nañ ma xaalis sàngam xaalis boobu def naa ko fii liggéeyal naa leen lii def la naa leen lii dërëm bu ci nekk fa nga ko dugal da nga ko wax bala ngaa jéggi siraat la loolu nag dafa jaru sóoraale dëgg la xam naa foofu lañ lay foofu lañ lay bàyyee nga tàggatoo rek parce que waxtu mi euh, am nga leneen loo ci bëggoon dool loo xam ne laajuñ la ko rek nga nga dolli ñu ko ci wàllu euh, ñaan yàlla bi ngay yëngatu sant yàlla sant yàlla bu baax te wax dëgg yàlla xol la ñuy waxee ku ñu jégg xam ne euh, xol la ñuy waxee ndax fi ñu toll la réew mi ñun bëgguñ mu mu mu mu nekk ci réew boo xam ne nii dafa nekk en danger dañoo bëgg réew mi nekk ci jàmm nit ñi nekk ci jàmm ndax ku am jàmm bu kenn amee jàmm rek yéene ko keneen réew mi am jàmm rek ñu am jàmm waaye nag bu kenn yéenee kenn musiba foog ne dañu si muccu day nax boppam rek ñun nag Cheikh maxtaan Niass ni ñu ko waxee ñu ngi dëkk lew euh, Léona Niassène Kaolack euh, tabaarkalla ñu ngi ñu ngi ñu ngi wàll dox ci wàllu ñaan ñaan yàlla te it wax dëgg yàlla euh, ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax te wax dëgg yàlla li ma la wax rek moo ci nekk li nga xam ne nii moom la ñuy def du dara euh, lii moom luñ xam la bañ nañ ko ba dañ leen ca bëgg a war a tuuti rek fépp fu ñuy tukki fu nekk duñ jël dara di ko yóbbu kayit ak bic buñ demee lépp lu ñuy bind mu ngi suñ suñ suñ mémoire bi numéro yi 77 la 815 68 75 waaw numéro boobu noonu ku ko ci kii rek beneen numéro bi xam naa ne danañ ko génnee jox ko jox ko nga dugal ko incha allahu rabbi wàllu ñaan yàlla dañ koy def ci euh, li nga xam ne nii moom mooy euh, euh, garabu dëkk bi impuissance ak li nga xam ne nii mooy nit ku nit ku nit koo xam ne dafa tële jigéen bu taxaw koo xam ne nii yaa ngi bëgg këyit nekk bitim réew ku bëgg liggéey tey yàlla joxu la liggéey nga nga ñu bëgg buñ déggante incha allahu rabbi danañ am ñu ñu la ci jàppale ndaxte dimbale jaamu yàlla yi moo ñu tax a jóg du lenn lu may dimbale leen ndax li ñu taxoon a jóg sax du lii maanaam actualité réew mi nga xam ne nii moom moo nekk ci réew mi te mu métti trop nit ñi di ko dégg ak santé bi nga xam ne ni am na problème ak yooyu noonu moo ñu taxoon a jóg ñu ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla euh, faj aajoy jaamu yàlla yëpp ci koor gi ñu nekk yàlla yàlla nangul ñu suñu koor ak suñu jaamu yàlla yàlla li ci ñu woor yëpp yàlla bu mu nekk habaan mansuuran ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa salli